mbokk internet yu Seneweb TV seneweb.com ak Seneweb rajo ñu leen di ziar bu baax ñu ngi àtte oustaz Makhtar Sarr si taxaw yu ñuy faral di def oustaz ñu lay nuyu di la bàyyi nga nuyoon teg ñu ñuy teewlu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Mouhamed na ñoo ngi lay fay di nuyu ñuy seetaan Seneweb TV yëpp fu nu nekk waaye di jéggalu ci baat bu xoddos bi ndax mhm. dama soj fan yi. Mhm. Euh, oustaz euh, si xibaar président assemblée nationale woo na bureau bi pour suba. si euh, presse bi ñu njort ne que dinañ si waxtaanaale si proposition de loi bi nga xam te nii ay député yu assemblée nationale euh, def nañ ko euh, sukkandiku si liggéey bi nga xam te nii ànd sàmm jikko yi def na ko si wàllum borom ñaari tur yi en tant que ku bokk si ànd sàmm jikko yi ndax da ngay jàpp ne ab jéego la si li ngeen bëgg yéen wala ndax da ngeen di tey ba xam fi waanante si di mu njëkki gëdëm waaw gis nañ ko comme ni ngeen ko gisee te moom lañ doon déglu. Mm-hmm. dañu liggéey liggéey boo xam ne dox nañ ba toll foo xam ne weesu nañu wax mais ci jëf lañu nekk mhm. jëf ji nag mooy bi ñu waree Sénégal ci quarante cinq départements yi léegi quarante six gaaral agenda bi nga xam ne nii mooy déroulé ci àdduna bi ba yegg si mhm. Sénégal te Nations Unies porté ko wan ko sénégalais yi bañ gis ko gis tamit jéego yi nga xam ne nii mi ngi ciy dox ci sunu réew ba lu un million sénégalais yu teg signé ko ci biir ñooñu kilifa yi ŋànk réew mi muy këru diine yi ci senegal yëpp wala këri diine ji ci senegal ñëpp siñe ko loolu mooy liggéey bi li nga xam ne mooy li ci jiitu ñu jóge ci état boobu noonu la jàll ci état bu woo sénégalais yi ne leen kaay leen wane seenu mbañ ci ngóor jigéen ak lii bëgg pour ñu criminaliser ko lan ngeen ci Euh, lan ngeen ci wane ne seen manifestation sénégalais yëpp génn ba biñ jógee ci loolu leeraloon nañ ko maag yow ci tolluwaay bi weesu jaratul dellusiwaat ci yooyu yëpp. Mm-hmm. biñ jógee ci loolu nag mooy lii nu bëgg waa réew mi ñi bañ lu bon ñëpp bëgg ko du ma ne jullit bi bàyyi catholique bi du ma ne catholique bi bàyyi kële ci bois sacré ba mais sénégalais yi rek. Mm-hmm. tout court ñu bañ lu mbon lu bon lii di ngóor jigéen. léegi nag loo bëgg lu nekk dëkk bu nekk dafa am yoon. bëgg nañu ñu saafara ko mais nan lañ koy saafara mooy luwaa lañ bëgg ñu teg ko bu koy saafara bi loolu amee ñu seeti ñi seen xam-xam màcc ci wàllu luwaa ndax loolu du suñu domaine biñ demee ñu wan ñu ci biir constitution bi lenn loo xam ne nii mën nañ ko jël jooyanti ko mu dëppoog li nu bëgg ñu jooyantil nu loolu muy article 319 bi nga xam ne nii depuis 1966 la woon xëy na dina dugg ci biir waxtaan mi ndax am na yeneen i wax yu ciy juddu. Mm-hmm. ñu joyanti article boobu noonu lay euh, la nga xam ne moo ci leeratoon ñu leeral ko la nga xam ne moo ñu nekkoon ay daan ñu yokk ko la ci nekkoon euh, daanu kaso wala daanu xaalis yëpp ñu yokk ko biñ paree ci loolu dafa am beneen phase boo xam ne nii Makhtar Sarr kër Mbuub ak ñeneen ñi nekk ci ànd sàmm ko yi du seen domaine mooy yëkkati loolu yóbbu ko assemblée nationale. ci la ñu wëree yan député ñoo pare pour porter lii yóbbu ko assemblée. loolu moo ci dugal turu député yi loolu dafay am solo sénégalais yu bari xam ko ndax léeg ñu mel ne yéen bu ngeen di wax ci seeni journaux seeni plateau da ngeen di tudd rek député yi yóbbu loi bi assemblée fàtte ne député yi du ñoom mais ñun dañu leen a yónni. ànd sàmm jikko yi ñoo am seen bëgg-bëgg wax ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu constitution. ñu bindal nu bëgg-bëgg boobu noonu le muy proposition de loi ki am sañ-sañu yóbbu ko fa ñaar la président ak député président projet de loi lay def député def proposition de loi loolu moo ci dugal député yi ci dugg ba tey ñu toll ci lim bu ko loolu nag bi ñu ko liggéeyee bala vingt 22 mooy bis bi nga xam ne ci lañ ko doon déposé ñun bi ñu ko déposé déglootuñu kenn ku dul président assemblée nationale jamono yi ñu koy déposé wax nañ ne nekkul ci réew mi dafa tukki woon kon tey bu ñu toogee ñu gis euh, ñu ne mi ngi am ñu muy convoqué suba ci député ci àllarba ji ngir waxtaan ak ñoom ci benn proposition de loi euh, yaakaar nañ ne boobu la bu dul boobu it bu paree ci boobu suñ mbos moom danañ ko xool incha allah taala euh, la ca des nag mooy la nga xam ne moo ci ëpp solo mooy càkkuteefu sénégalais yi ñu nu yabal yónni leen ñuy suñu ndaw ñu defal nu ko loolu dong la ñuy déglu di ko nekk. am na ñuy ruuma daan ne que euh, boo leen moytul euh, proposition de loi bi dañ koy dàq du sa àgg euh, plénière ndax yéen loolu bokk nga seen seen njort. ñoo ñooy ñan ñi wax loolu ñoom ñooy ñan xam nga ku nekk mën nga wax rek sa xalaatu bopp. Mm-hmm. mais ñun moom li ñu fas. mooy liggéey nañu ba dugal assemblée nationale léegi bal bi mi ngi ci kaw assemblée nekkul ñun ci sunu cas. am na loo xam ne nii ñun munuñ ko gérer munuñ ko xam. ñun liñ mënoon a xam mooy li ñu yoon may yëpp jël nañu ko ba dugal loi bi assemblée ñu defal ñu décharge wan ñu ne loi bi jot nañ ci. kon ñun dégluwuñu koy wax ci palaato wala ci rajo. mu naan ñu dana jàll ak groupe parlementaire euh, benn bokk yaakaar ki ko jiite euh, li mu génne wax wax ne fu mu toll li fi nekk mel na ni doy na sëkk soxlawul ñu siy dool leneen. waaw loolu nag dana ma may ma am yaatal gu bari gu ma ci def. Mhm. mooy euh, wax jooju donte wax ji man damay jàpp ne ndem moom moo ko wax. ndax euh, ba léegi maa ngi am problème ba ci sax convocation bi lu tax duñu def seen signature man problème la ma def defe naa lu toll ne institution bu toll ne assemblée nationale ku jiite groupe parlementaire booy bind benn communiqué wax dëgg fa yàlla cachet wala signature mën na war na ci nekk te ba léegi gisuma ko mais bref ñu daa ñu jàpp rek ñoo ko moo ko bind même bu dee moom moo ko bind may jàpp ne moom la concerné moom mi wax def ci turam mais concerné wul député majorité bi ndax député yu bari yu nekk ci majorité bi pare nañu pour porter komba bi euh, yéen ñëpp dégg ngeen Abdoulaye Wilane ci député majorité bi la bokk wax na ñëpp di ko dégg ne luwaa bi bu ñëwee daf koy voté ak yeneen député yoo xam ne ni jarul may tudd seeni tur yu nekk ci majorité bi mm-hmm. kon loolu engagé wul député majorité bi loolu mu leer tamit ci bopp sénégalais pour ñu xam ko du mbirum opposant léegi ak mbirum pouvoir no mais mbirum Sénégal assemblée bi assemblée Sénégal léegi mbirum euh, homosexualité yàgg ngeen ko wax kilifa yi sax bu ñu demee biti réew dañu naan Sénégal euh, dàqul wala boog nekkul homosexualité lay bañ waaye li muy bañ mooy euh, jëflante acte contre nature nga def ko en public loolu mm-hmm. après dañ koy jàppee comme attentat à la pudeur mm-hmm. ndax loolu yéen daf leen di gën a conforté ne que loi bii ni lu yell la mu dugg ci suñu code pénal Euh, ngir ñu gën ko mën a leeral. ah waaw loolu yow euh, xëy na jiitu nga ma sama sama tont bi kon yow tontu nga sama laaj bi mooy wane nga ne kon loi buy tere ngóor jigéen amul Sénégal. vidéo bi bu laajee ñu teg ko nii ñu teg ko ngeen dégg ko bu laajee it après ngeen monté ko dugal ko sa important. dina ko boole la majorité seules 28 recommandations sur le euh, ce total là ont été notées et mais ces 28 là ne concernent pas seulement. les, les, les, les personnes, euh, l'homosexualité, mais ça concernait certaines dispositions relatives euh, au de la famille, euh, aux droits des femmes, à, à l'autorité parentale. Donc pour revenir sur votre question spécifiquement, je voulais juste préciser euh, que la loi sénégalaise n'interdit pas en tant que telle l'homosexualité. La loi ne parle pas d'homosexualité. Ce qui est interdit et réprimé, c'est les actes contre nature. Et actes contre nature commis en public. Parce que si ces actes sont commis en, en public, ils sont considérés comme des attentats à la pudeur. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, il ne s'agit pas de persécuter les, les, les, les personnes homosexuelles dans leur intimité, dans leur vie privée, dans leur maison. Non. C'est des actes contre nature commis en public qui sont interdits et réprimés. Et je reviens à ce. loolu benn la ndaw si mi ngi waxee lii ci EPU bu 2018. bi Sénégal teew fële ca Nations Unies wala bi mu teew fële ca Genève ca Suisse kii Madior Fall la loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui de par leur publicité s'assimilent à un outrage public à la pudeur au demeurant le Sénégal est un pays tolérant respectueux des droits humains mais n'est pas encore prêt à légaliser l'homosexualité d'accord léegi lii mooy discours bi ca Nations Unies maanaam discours officiel te ñu teg ko ñoom ci fu wóor mooy loi Sénégal terewul ngóor jigéen li defe naa nekkul lu ñuy discuter ci li mu tere lan la mooy acte contre kon acte contre nature considéré góor jigéen homosexualité Sénégal pareegul pour dépénaliser am lu jàpp ne mi ngi si biir. waaw am na ñu jàpp bokkul ak discours officiel bi ak do doxalin officiel. xam nga mhm. interprétation. Mhm. lañ bëgg mu jeex. Mhm. ñun li ñu yóbbu assemblée bu jàllee. amatul naan euh, nii lañ koy déggee na leen lañ koy dégg acte contre nature. mais mën na nekk loo xam ne tey ngóor jigéen. mais am na koo xam ne jàppewu ko mu nekk contre nature dafa naturel. ko nekkatul contre nature. kon act moom bi muy posé nekkatul boo xam ne nii bu naturel la mais act bu naturel la kon act contre nature mënatu koo daaneel loi bi biñ koy voté depuis 1966 la woon loi bi article 319 bi depuis 1966 Mouhamed Diallo loi buñ voté 1966 mën na àtt 2021 ak diggante bi li fi dolleeku yëpp ak li fi xew jamono yi ñuy voté loi bi considéré woon na homosexualité àtte woon na ko jamono yooyu mais jamonoog ni muy doxee Nations Unies ni ñuy soppee seen doxalin yi ñuy jógee ci droit de l'homme ñëw ci nouveau droit ak yi nga xam ne moo ci dollee ko ba ñuy jóge jëlee homosexualité ci feebar indi ko léegi ci li nga xam ne mooy ay àq ki yelleef loi bi mënatul a àtte wala muy dugal moom act contre nature homosexualité ndax démb ca France normal toon acte contre nature la boo ko defee mais en 2013 ca France la ñu voté loi may ay góor ñu takkanti soo fa demee naan leen acte contre nature mais c'est naturel nekkul acte contre nature ndax accepté nañ ko kon acte contre nature déglu ngeen professeur Ndiak Fall sunu xam-xam màccul ci wàllu droit yu ni mel mais xam-xamam màcc na ci mu ne lii ànd sàmm ji yi di demander dafa am solo pour ñu dimbalee ko ñi nga xam ne ñooy àttekat yi ndax loi bi fi nekkoon leeralul homosexualité waxu ko acte contre nature la wax te loolu nga xam ne wax na ko biñ jàppee góor jigéen yi doon takkante en 2008 mais Sidiki Kaba bi mu leen di peladeel nekk seen avocat mais loolu bokkoon na ci li mu sukkandiku mooy loi bi terewul ngóor jigéen ñaata yoon lañu fi jàpp fii ci réew mi ay góor jigéen 2015 24 décembre Kaolack bisu gàmm lafa ay góor jigéen dajaloo di def seen mariage ci école Ibrahima Diouf juróom fukki lañ toll ñi ne juróom fukk ak lu teg ñu yëgal ko police police wàcc ci école ba ñu bari daw ñu jàpp ci fukk ak benn ñu dem police ñu déglu leen defar PV jox ko procureur mais procureur dafa xëy may leen liberté jàllale wu ñu leen ñu coow ko jàmmaraak kuréel yi ñu àndaloon yëpp collectif no à la fran non à l'homosexualité ci la juddoo woon ñu ne amee ah, attention jàpp ay góor jigéen bisu gàmmu dëkk bu teddee ne Kaolack ñuy takkante ñu xëy bàyyi leen mais ministre bi nga xam ne moo yor wàllu justice ci jamono yooyu lan la wax bi mu génnee même wax ji mooy Sénégal terewul homosexualité li mu tere mooy acte contre boo xam da nga ko defee ci public kon ñu tëju ci seen néeg di def seen mariage di takkante wala ñu dem ci saal tëj seen bunt di takkante donte dañoo filmer seen bopp mu tasaaroo fépp loi bi mënu leen a daan ndax loi bi terewul loolu te loolu mooy valable ba tey barki de moo Ndiaye Mermoz 25 ndaw yi ñu fa jàpp ñu doon def seen mariage presse bi tasaare ngeen ne lépp luy jumtukaay yu góor ak jigéen di jëfandikoo bu ñu ànd ñoo ngi ko fekk ca ñoom ñu joxe ko ay cadeau yu ni mel mais ndaw ñoo ñu fan la ñu mujj loi bi ndaw ñooñu bu ñu leen yóbbee tribunal bu ñu amee avocat dañuy ñibbi ndax avocat bi bu sukkandikoo ci loi bi mën na leen layal convaincre procureur convaincre convaincre juge si ñu bàyyi leen ñu ñibbi léegi nag loolu nga xam ne moo fi nekkoon jarul di wër-wërloo ñun indiwuñu lu bees ànd sàmm jikko yi xam nga nu mu def bi mu demee ba bëgg lu bon lii ñu jëlee ko fi loi boobu lañ dem jëlee ko indi ba woon 1966 lañ indi ne nañ ko modifier ñun modification la ñu demandé mais demandé wuñ nañ fi bàyyi bii di indi beneen dañu wax ne article 319 alinéa 3 bi nekk ci code pénal li mu wax ci mbirum ngóor jigéen leerul acte contre nature la wax léegi ne dañoo bëgg ñu jógee ci acte contre nature bind LGBT nga boole ci i wala q wala plus muy lépp lu jëm ci ñaari góor yuy sëy ñaari euh, jigéen yuy sëy lu jëm ci transgenre pour wax la ne exemple bu bu jege laa ciy jox ñi seetaan ñu xam ne luwaa bi terewul ñun li nga xam ne moo ñu xari xam ngeen fii Sénégal ñoo xam ne nee nañ góor jigéen lañ dem bitim réew ñu defal leen opération ñu am ay cëru jigéen am seeni ween ak lépp di ay góor mais kooku ba génnee ci mbedd mi fii di dox benn policier du ko arrêté procureur mënul ci moom dara mooy transgenre LGBT T bi mooy transgenre mais transgenre sunu constitution bi àttewu ko te loi bu bees bi ñu yóbbu assemblée nationale transgenre daf koy teg daan benn góor du amati droit dem ñu defal la opération ngay daagu ci mbedd yi fii nii lu dul yoon dal na ci sa kaw lii lañ wax ak leneen loo xam ne nii ñoom ñoo gën a xam li ñuy wax ak li ñu yóbbu assemblée du benn ay no mi ngi fi woon jaru ko déedéet la fi woon ñun dañ cee dolli lu dul jeex bokk na ci rek mooy apologie homosexualité dafa duggaale ci loi bi nga xam ne un an ba cinq ans prison la que les cinq ba dix ans ki nga xam ne jàpp nañ ko ci act bi mais ki nga xam ne mi ngi tagg ak ngóor jigéen di ko kañ wala mu leen di defal promotion loo rek day nekk crime bu boobaa ma joxe ci benn exemple bu concret tey ñaata ñun ñooy ñëw rek déclaré ne ñoom ay góor jigéen lañ ngir ami këyit te doonuñu ko seen mbokk journaliste yi am na ci kenn ku ma wax xam naa turam ak santam parent ñëw na fay ko 2 million pour mu bindal ko benn article ci journalam pour def ci turu doom ji pour wax ne doom ji góor jigéen la pour mu mën ko yóbbu ambassade. pour ñu may ko ah. mës nañ ma proposer lu mel noonu. yow mës nañu ko proposer. Mm-hmm. merci beaucoup léegi nag lu mel noonu wayjur woowu noonu la bi bu jàllee wayjur bi loi bi daf koy yar ndax apologie homosexualité la def ñëw ne sama doom góor jigéen la pour ami kayit yii lañ dajale mu nekk yoo xam ne yu leer la ci bopp ñi nga xam ne xam nañu li ñu tax a jóg mais nag tout le temps ki yëgul li xew ak xamul mën nañ ne ko non loolu moom réglé nañ ko depuis lors mais lu simple laay dellu siwaat rek mooy loi 1966 mënu la àtte 2021 te amul lu ca manqué viol wuñ ko fi woon amuloon loi bu koy tere mm-hmm. léegi lan moo tax ñu 2020 ñu ñëw criminaliser ko te ñu bàyyi ko mu jàll naka lañ mën a mayee ñu criminaliser viole ñu ne noo non bu buñ ko criminaliser vol de bétail sàcc yi jur loi terew ko woon mhm. lu tax ñu ñëw criminaliser ko ñu bàyyi ko noonu mu jàll waaw kay léegi viol ak euh, lu jëm ci wàllu sàcc jur ak yooyu Nations Unies moom tegewaatul ci benn xuppaate waaye nag homosexualité moom Nations Unies daf ci teg ay xuppaate ne dépénaliser lañ ko ñun jamono yii ñu wax nañ criminaliser ca wet ga waa ànd yàq jikko yi ñaar ñi dong ñoo fi nekk wax naa ko ànd sàmm jikko yi ak ànd yàq jikko yi waa ànd yàq jikko yi ña ngay xeex di def seen combat pour ñu dépénaliser ngóor jigéen waa ànd sàmm jikko yi ne nañ criminaliser ngóor jigéen léegi na ñaari kuréel yooyu doo nga fi nekk ku bokkul ci ànd yàq jikko yi bokk ci ànd sàmm jikko yi te ànd sàmm jikko yi nag mooy dañu wax ne sunu réew yi bon yi bari mu ngi fi mais nag dafa am loo xam ne ni future génération bi bu ñu ñagul suñuy loi aar leen suñu réew dana xëy réew mu mag ñu baax ñu tedd ñi tëdd ay góor jigéen di dox ci kaw suuf si di fóonante kenn du ci man dara. d'accord loolu la ñuy bañ mu am ci suñu réew.